dañu bëgg a bu loo xamante ne eggul fenn kii Ousmane Sonko kenn condamné ko te ñun mënuñu ko condamné Ousmane Sonko am na droit bañ dem wuyu ji am na droit dem ñu kii dem wuyu ji ñu ne ko lii nga def wala yaakaar wala defoo ko mais jeex na li si des amatul benn maana li ci des amatul benn solo Ousmane Sonko kenn condamné wu ko Sénégalais yi nag ñoo ko bëgg a condamné alors kenn condamné wu ko donc Ousmane Sonko tey suñu frère la suñu doom la suñu collègue la tey jii li rek mooy. am na ku euh, ku ku ñëw ñaxtu ku ñaxtu muy Adji Sarr Adji Sarr ñëw na ne lii def nañ ma ko ñëw nañ bëgg a laaj déglu nañ ko bëgg a déglu Ousmane Sonko ñu ne léegi mënuñu ko déglu après wax na dëgg balaa ñu koy déglu foog ñu ne Milano Milano Kirlaay Kirlaay moom lañ dindi jeex na léegi nag buñ ko dindi ñu dem entendre ko bu dee def na xëy na bu deful tamit ñoo xam mais ñun ñun duñu ay procureur ñun suñu droit rek mooy lii ñu de lii ñu ah voté nañ ko de gis ah, nañ ko muy muri nañu mbalaanu kirlaayu Ousmane Sonko mu mel ni ki amoon na tuuti pëccëxoo bu amoon ci biir ak ñàkk déggoo ñu liggéey bi jaarul ci yoon mën nga ci dellu si waat defe naa ni ñun ñëpp muy ñun ñi nekk ci parlement bi muy yéen ñi nekk ci presse bi muy mbokki Sénégal yi ñuy seetaan ñëpp xam nañu ni liggéey bi ni mu war a jaare noonu rek law jaare ku nekk am na procédure yoo xam ni répété ko sax def nañu indil des fois tardement parce que ku nekk xam na ni bi ministre de la justice yónnee ci président de la l'assemblée pour demander ko ñu lever malaanu sutura bi assemblée bi protégé woon Ousmane Sonko muy immunité parlementaire mm. li mu njëkk a def mooy wote bureau mm. assemblée nationale bien mm. sûr voté conférence des président demandé commission des lois ñu tànn bi nga xamante ni ñooy représenté assemblée bi pour diglu Ousmane Sonko commission de loi woote ñu tànn salon ni ñu koy tànne ci biir assemblée bi ñu dem plénière valider ko ñoom ñi nga xamante ni tey ñoo ni duñu ko voté et pourtant bi ñu laajee ci biir commission bi yónnee nañu ñu leen fa représenté ñoom li leen jaaxal mooy bi ñu ko yónnee xam nga ay waxu x bu ko fi kenn wax di lëbëji xeli nit ñi parce que non non non bul yàq samay wax da nga maa laaj ma di la wax man magum jëm laa damaa génn fee ñëw ba fii pour wax ñun duñu lëve mbalaanum kenn ci x ñu wax waxi x li ñu liir leer na su dee déggu leen tubaab ngeen jàngi arabe walla ngeen jàngi anglais waaye li ñu wax leer na mooy Ousmane Sonko moo nekk ci lettre bi ministre de la justice gàddu yónnee loolu la la la présidente commission moo nekk ci document yi nga xam te moom lañu ñu jox assemblée nationale. léegi su fekkee ni validé nañu ko comité bi ñu woote réunion altine ñu ñëw wuy si ñu réunion ba pare tënk ni lii ñu fiy wax bu mu génn salle bi ñoom ñu d'accord ci. direct ñu toog ci biir salle bi ñu gis leen ñuy def en direct ak ITV maa ko gis Walfadjri euh, Facebook kon ñoom li am solo tey mooy Ousmane Sonko ci boppam mooy ki waroon a sax nag démb bi mu dajee ak nit ñi liñ ko doon xaar mooy naa noppal askan wi te démissionné ndax comme dafa bëgg a yor réew mi dafa war a respecter institution yi assemblée baaxul ñiy àtte baaxuñu Macky Sall baaxul député yi duñu dara gendarmerie amuñu droit def lii police a ngi torturé ci ku expiré ni da nga bëgg a jiite am réew defe naa ni doo defee noonu xaalu xaarewuñu ko foofu xam nga fu koy xaar mooy moom na dem ni sénégalais yu bari ñàkk a gëme ni moom defu ko na dem woon sénégalais yi ni defuma ko foofu lañ koy xaar na setali boppam setal parlement bi jël si jël ndoom ak tànkam liggéey foofu la ñuy xaar Ousmane Sonko xaaruñu ko feneen beneen bi ci des moy ñun mënuñu weddi suñu bopp ba ñu nekkee ci assemblée bi di liggéey ak léegi ak la ko jiitu ndax 2005 keroog ba nu jëkkee introduire loi parité man ca bokk di xeex cause de la femme ba am loi bu criminaliser viol def na ak deful kooku yoona koy leeral na dem leeral boppam ki nga xamante ni tey moo convoqué walla moo porte plainte du ab guinéen du malien ab sénégalais la ki mu porte plainte ab sénégalais la mani ni Ousmane dafa mën a ëpp maqaama Bill Clinton affaire jigéen laa lay wax de DSK mu bërki démb mii nag boo tooñee saw askan da ngay humble am modeste bu tol ni dem setal sa bopp mbala nga ni jéggal ma waaye dafa war a leer que du affaire état ak Ousmane Sonko affaire Adja Sarr la ak Ousmane Sonko na dem lijjanti ju ko bu setalee boppam dina honoré boppam honoré njabootam honoré réew mi xale yii ko topp dana leen honoré dana del si liggéey ci assemblée bi su fekkee setaliwul boppam nag loola man xaw ma ca dara ndax man li ma war mooy liggéeyu député laay def foofu laay yem du ma dugg ci jugement de valeur man dégg man dégg nga ma man du ma organisation des femmes man la Mously jaxate kuy xeex depuis depuis 2005 may liggéey ak COSEF liggéey ba parité am liggéey ba réew mi taxawal lu bëri ci jigéen di liggéey ci condition des femmes di liggéey ci autonomisation des femmes ay des jeunes filles ci ci ëmb yu teel yi di liggéey ci obstétrique fistule obstétricale man dama sama bopp laa xam xam nga hypocrite mënut a weesu ngay xeex ba am loi bu ñu criminaliser ah viol première victime ñu ni ko defoo ko il faut mel ni ñun dañoo war a toog palaasu justice pour atte loolu moo dul yoon dafa am ñu ma décevoir man commencé par madame Aïda Mbodj en tant que ancien ministre de la femme avocat Ousmane Sonko jamono bi avocate en tant ministre de la femme en tant que koo xam ne ba mu am parité moo ko jiite en tant que keroog ba ne euh, loi euh, sur la viol moo ne ca kanam ku mus di xeex condition des femmes tey mu nekk avocatu Sonko nee na daf koy défendre Sonko nag jox ko bu neex mooy de ko yónniwul Sonko di yónniwu ma Sonko yónniwu ko parce li am solo mooy boo deful li nga war a def lii rek la cay fekk toroxal sa bopp toroxal saw askan. voilà mu nekkoon honorable député Moussa Diakhaté moom mooy ki nga xam ne rek moo mujjee génn ci biir assemblée bi moom lañu ñu mujjee jël dégg ngeen nag kàddu yi nga xam ne rek amal na ko moom daal jàpp na ne kuy njàkk euh, Ousmane Sonko mooy njàkk waaye tamit blâme na ki nga xam ne mooy di. Euh, ay Aïda Mbodj mi nga xam ne dafa porté wu dem défendre ki nga xam ne moo di député Ousmane Sonko voilà fii la ñuy daal di yem ak yéen rek ba beneen yoon incha allah